Boxe Maga TV Boxe internet nous sommes édition Saladel ba léegi je fi taxaw box social suis ngi taxaw ci box boxe neex show neex show beaucoup de kiy tàngali yaramu éleveurs yi bu gars yi sonnee ne si nuyu naa. fay naa la waa Laadum TV. Samagal TV Samagal TV. Laadum TV TV yëpp benn la. waaw benn la yéen sotti teg def ci la yéen ñëpp yéen a bokk ndey baay. waaw noonu la. kon Samagal TV. waaw Cissé Dia. Euh, waa neex waaw waa neex li ngay li ngay rëgal fii. booy di ñëw gars yi di daw di yuuxu bu nu sonnee ñëw fii lu mu doon. ah neex show baa ngi nii c'est pour éleveurs yi kese la. waaw man yéen laa am. voilà maay seen jigéen yéen samay góor. ngeen jàpp ci nag. foire bu am rek ma ñëw neex showal la mooy neex show lan mooy neex show. waaw hmm? neex moom produit la c'est base de naanaa la gingembre ak citron waaw produit bio la rek ñun xam lépp lu lépp lu kii ci bio rek ci la ñuy dox. affaire bio rek. yow en général say produits lan lan moo ci am jinjeer. waa day am jinjeer day am citron voilà am na boo xam te ne petit cola la ak baton de cannelle. mala baax ci fatiguement général bek, ay cholestérol ak angine mak yoy pitou que la baax ci ay balon de ventre ay ballonnement voilà. té la quoi genre té té la day koy naan en chaud voilà. say produit foko jëlé sama produit fi di ci Sénégal lañ koy kiiyee comme du bio la kay jinjé di fi lañ koy ya di fi Sénégal ti fan. garba garba gaaru ba gaaru Dakar. ba ah, ngay jëndee jinjeer. waaw yeneen i safina. yooyu. yooyu yëpp tamit suñu tool yële ca Mboro xam dëkk. sama tool laa koy jëlee mboor suñu tool yi rek. Ah. waaw depuis combien de temps waaw def naa ci 15 ans nag ci ren. Ah, neex def naa ci 15 ans. Ah. ci monde élevage. ak ci foire yi xam yow ma njëkk ci élevage yow. ah. man may ngand ngandul yëpp yaa ma njëkk yàlla dogal. <laughs> ah neex. waaw mais moom bon naaj na cool na lépp lépp lépp macha allah quoi parce que ngi man man moom damay ñëw di jënd lu ma fay sama sama yoon. waaw yow moom sama góor nga moom. waaw sama góor nga ko baax nga di ma dëpp say micro ak say kamera fayuma la dara da lépp ngir jàppale Nekh Show rek jàppale société bi mu gën a dem ci kanam waaw kon njuk maa ngi lay kiyal daal maa maa ngi lay delloo njukkal foire boo demee jënd box ah parfois box yi varié entre parfois xar kenn xamul ay cinquante mille soixante boobu nag wax dëgg fa yàlla maa ngi ciy sant éleveurs yi di leen ci gërëm parce que xëy na yàgg ma yàgg ak ñoom la mais tamit am na ñu fi gën a yàgg te defuñu defu defuñu leen niñ may defaral kon am na fuñ ma teg yërëm nañ ma encouragé nañ ma parce que encouragement weesul foire yi wax dëgg fa yàlla des fois prix bi day day parce que ci endroit bi ñu koy defale mais dañ koy oyofal ba mu oyof ne neex suñu suñu jigéen la dañ koy wàññi ba ci président yi loolu moom maa ngi ci maa ngi ciy maa ngi ciy kiyal ñëpp wax dëgg fa maa ngi ciy delloo njëkkal surtout père Samy mu nekk baax suñu président fii Tëngéej waaw moom moom dana ma xoolal loo am rek nga joxe vraiment ndax ba ngay ndaw nga ñëw ci ñun kon waruñu laa fayee ko waaw maa ngi leen di jukkal ci loolu moom vraiment waaw. à part ça nag euh, neex euh, yow lan nga xalaat euh, yokk ci mbir mi wala yow fii rek nga ko bëgg a kale wala bëgg nga tey dem ba am benn boutique boo xam ne day def ay ay produits bio ñu xam ko mu nekk neex show waaw déjà ñu ngi ci sax ay boutique la ñu yor nii ñu def exposition bi bio produit boutique boutique mobile boutique bu mag laa wax boo xam ni dañ naan ñu ngi biir Dakar neex show képp ku sentir sa yaram di naqari ñu daw fa loolu moom maa ngi ci maa ngi ci yoon bi di ñaan yàlla jàppale ñu rek ba ci kanam mm. voilà incha allah dinañ te comme Termousse bu ndaw laa ñëwee woon ci foire yi mm. ma dem ba toll fii kon sant yàlla la ci boutique boobu nag loolu ci sama projet ci la gën a waaw moom daal mooy lépp dama ko bolé sama projet am point de vente bi nga xamante dañ ma fay fekk Dakar ak ay point de vente ci raison yi. ak ay ay point de vente. ci raison yi nga xamante ne voilà nga xamante raison yépp dama ko fay samp. fu fu fu awa ga fu foire am foofu lañu jëlé bagage directement rek yobu ci foire ba bu ko bëgg ci gox ba boo demee ci fofu ci boutique yi dang koy am teg ci ndaw yi dëkk ba uh-huh. di ci liggéey pour ñu wàññi chômage bi parce que jigéen ñu bëri liggéeyatuñu léegi xëy jafe na ci Sénégal wa lool dal maa ngi ci taxaw daal lu ci woo ñëpp. macha allah waaw foofu daal laa bëgg incha allah. sama gaal bàyyi leen boisson gazeuse yeeg yooyu affaire. ñëw ci bio bi waaw ñëw ci bio bi yonent bi nee na boo bëggee wér da ngay dundee li li sax ci sa lii. fii la sax fii lañ ko defaree. numéro bi te doomu réew fi defar. numéro bi numéro bi 70 adresse bi parcelle la unité 9 ci ginnaaw poste de santé bi ku ñëwoo suñu numéro 77 181 27 12 da nga ñuy jot dañ la koy livré fépp ci Sénégal. célibataire la ñu ngi leen di njukkal amul jëkkër dimbali leen ko sonn na seddaay bi fii yi dañ maa ragal ndax jinjeer bi